waaw kon nag euh, ni ngeen ko gisee léegi ci image yi ah ñu ngi dugg ci jumaa ji da summi dàll summi dàll comme ni mu ko waxee ndax jumaa néegu yàlla la da koy ormaal dañ koy wormaal summi dàll yi yàlla yàlla na nangu ziyaar sang bi na def ça va bien. da màggal si. waaw dañoo màggal fan nga dëkk. maa ngi dëkk euh, Kaffrine dëkk bu ñu naan Touba Mouride. Touba ci booru Koungheul. ci booru Koungheul. na nga def ak màggal gi ren ah, sant yàlla bu baax a baax mbirum sëñ bi moo mel noonu moom. ndax moom mbiram moom saa su ne day dellu di jëm kanam waaye du dellu ginnaaw. tey sant nañ yàlla bu baax ndax. suñuy way jur lañ fi daan àndat bi ñuy nekk tànk. loolu it marqué ñu bu baax. Uh-huh. waaye sëriñ bi itam li tax euh, nit ñi ameel ko njukkal lislaam bi rek la fi nekkal kon kooku mu wax dëgg yàlla boo wootee ñu santale ko suñu borom ñëpp war nañuy ñëw te yaakaar naa noonu lañ ko doxalee loolu am nañ ci mbégte na yaakaar ku fi ñëw ak yokkute rek ngay gis loolu kon taw féexe na lool kon yéen nit ñi kam ndaje nañ fi yéen ñi ngi si arante yéen bu baax di leen ñaanal Euh, seen rajo bi xam naa taxagul ma xam ban rajo. waaw TMS TV la. waaw ah. télévision ah, euh, Sow. waaw ah, boobu lool. waaw dégg nga xam nañ ko bu baax a baax. am nañ mbégte bu baax maa ngi tudd Baye Cheikh Ndaw dëkk euh, Touba Mouride 1. yaakaar naa kon xam nga dëkk bi ci boori Koungheul. boo xamee Saño. ba ci biir. ci biir waaw bambu bambu <laughs> <laughs> xam waaw foofu la foofu la am nañ mbégte bu baax ci bis bi bu baax a baax wax dëgg yàlla am nañ ñu lay bu baax. jërëjëf ngeen dégg ndeysaan taalibe boobu ndeysaan baax ba bugg a dey moom tamit ah kàddu yu rafet yii nga xam ne nii yëkkati na ko vraiment muy kàddu seede ak kàddu cant ci ki nga xam ne tey moo liggéey liggéey bu rëy bi tey bàyyi fi tey nga xam ne liggéey bi amul tànk ginnaaw tànku kanam rek la am. ndax màggal goo xam ne at bu jot day gën a yokk day yokk ci nit day yokk ci koom-koom day yokk ci lépp. am na benn mag ñu ci jox xibaar boo xam ne euh, ku ne xam ne sëriñ bi bi nga xam ne mbiram mi mu ngi ñëw euh, te mu nekk booba tuttànk ba ñi ko daan wooyee sax dafa Mamor Anta Sali bi jamono yooyu yóbbu nañ ko Saalum dëkk bu ñu naan wax Njuujën euh, ku ñu naan wax sëriñ diina mu doon koo xam ne da daan faj rab ak xeeti feebar bu ne sëriñ bi mu leen jaaxalee bañee xool li nekk ci moom ku tedd ki boole ko maam Mor Jaara magi mag mu bu ko dëkk bi ñu naan Njuujan ba mu demee itam ni mu baaxoo def la def de beru ci àll ba kam sëriñ bi maanaam maladie bi ñëwee ni leen di soxla di la rusuwaale bi nga xamee ne maanaam léegi bu soxlaa ndox day ñëw ci teen bi waaye bu ñëwee fekk soxna yi di di root day day ñëw du mooyu leen du leen nangoo xool du nangoo wax ak ñoom day yor loxoom nii satala gi dippi satala nga xam ne kii ndox la ndox la soxla su ko defee waaye boo duyee ndox bëgg koo defal mu dëpp satala ba soxna yi naan wa man de nit ak ma diine kii moom bu ñëwee ci ci teen bi ndox lay soxla waaye saa soo ko def bëgg a duyal mu të mu tëj satala gi waaye xam naa ndox ma moo sellul ba tax maanaam léegi nangu koo jël soxna su ñëwee soxna ko du sàlla mu ne man de saa soo xamee na maanaam léegi fekk na ma ci teen bi su ma ko duyelee dana jël soxna yi na ko ah man de kon xamu noo koy defee mu ne waaw baax na ba suba ci suba rañ seen ku tedd ki ndeysaan mu bàyyi ko ci fam daan wéetal yàlla bi mu ñëwee fekk soxna yi ci teen bi ñu ne ko ah nit ak ma diine gaa ngay ñëw da la nga waxoon su fekkee man nga ko tey dana leer soxna si bi nga xamee ne ku tedd ki ñëw na ba yoraa satala gi nii du mooyu leen xam nga du nangoo xool soxna yi du nangoo wax ak ñoom waaye bu tàllee la loxoom xam ni wan leen ginnaaw dippi sat léegi danañ xam ne ndox la soxla si daal di yëkkati goj bi na bisimilahi yor loxom yor yor goj bi ci teen bi ba mu génne dem ba gé ba sori sellal boppam jàppaat del si na bisimilahi yor goj bi ci biir teen bi ba nga xamee na wëgg na ba baag bi ñëw mu déetu na bisimilahi ku tedd ki daal di dippi sat léegi ndeysaan mu sotti ci mu daa di du moy ko ne ko saa soo ma fi gisee tee rek xamal ne nii laa ko soxlaa nga defalee ma ko noonu xam nga loolu daw na yaram léegi loola itam mu xam ne kii ku tedd la mu de ko toggal laax ba booba boo amee géddu bëy wala yooyu bar borom barke ngay doon soxna si ndeysaan sippi soow mu bari ngir xam yii ne ci ku tedd ki toggul laax bi bi mu toggee laax ba pare tegal ko ndoxu raxasu beeg laax beeg soow mi bi ku tedd ki ñëwee jël satala gi sotti ci ndox mi comme tuuti lam daan barkilu mu barkilu waaye laalu soow mi soxna si bi mu ñëwee xam nga boo amee gan gu tedd nga uutal ko loo xam ne da ngaa bëgg mu xewlu ci bu baax a baax ku tedd ki daal di jël satala gi sotti ci laax bi tuuti barkilu kam lam daan barkilu waaye laalu soow mi bi mu ñëwee gis so ku tedd ki laalu soow mi mu daan ni ko ah, ku tedd ki xanaa xamoon na lii am soow la de ku tedd ki ne ko ndaxam koo xam ne balaa ngaa ji gis siraat soow mi nga nampe ci sa wuy jur danga ko layoo sàkkal soow mu waay yaay jàmbur mu daal di dem ci sëriñ ma diina ne ko nit kii ñu indi la nan la ab dof la sori na ab dof ndax lim wax ab dof ko wax su xëyee bu ñëwee boo koy ragal laaj ko naka yaram wi ba mu ñëwee sëriñ ma diine moom nga xam ne moo daan fay rab yi bi mu ñëwee ba ba sëriñ bi ñëw mu daal ne ko naka yaram mu ne ko yaram wi de bis bu set li cay yendu li cay fanaana ko xëpp li cay li cay xendu li cay fanaan ko xëpp li cay fanaan li koy xendu ko xëpp kon wan na ko ne ko sama mbir de lu ginnaaw mu daal di xoo maam Mor Anta Sali ne ko kii de mu daal di xoo maam Mor Jaara ne ko yi ngeen dem delloo kii soo demee waxal sa bàyyi ne ko mbiram ram newul ci moom mbiram yàlla rek nekk ci moom kon kooku loolu def na ko ci Saloum kon ñu ngi sant ñuy gërëm di ñaan yàlla ni ñu fi teewee ren yàlla nañ ko fi dajee déwén bu soobee yàlla incha allah ànd ak ay ju faju loolu yàlla may ñu màggal guñ nangu nag ci barke xaadima rasul loolu nag magam du kumaan moo ko solal léegi nag kon laaj na ma it ma ma ma yeggee leen ko ñu ngi sant yàlla bu baax di ñaan yàlla ci barab bu tedd bii ñi nga xam ne ñu ngi dugg ci biir jumaa ji lépp luñ fi ñaan yàlla nañu ko yàlla nangul ñu jëlee fi luñ kaw si njorto képp ku màggal si yàlla yàlla def li nga fay wuut ci jàmm yàlla may la ko may la wér may la njaboot gu baax gu barkeel barke xaadim rasool sant nañ gërëm nañ bu baax a baax a baax couloir kër Alaaji Thierno Moulay Sow. waaw waaw waaw waaw. mu ngoog moom moom chaîne de télévision. dama koy seetaan dama koy seetaan ci internet bi nii. dama koy seetaan ci internet bi. ndeysaan Moulay Sow waaw Moulay Moulay Sow. ndeysaan dëgg la dëgg la dëgg la dama koy seetaan dama koy seetaan. moom nag dafa am jaar jaar Touba. Ah. daf fi jaar bi demaat liggéey fii la jaar. Mhm. wax dëgg yàlla nag. waaye gis nga ko rek mu ngi def ay kiraama ci àddina di fas ay jinne ak ay rab. dëgg la ci loolu lay liggéey. alhamdulilah alhamdulilah yàlla na ko yàlla jàppale yàlla gën ko yokk xam-xam bi yaatal xam-xam bi bu baax a baax a baax nit képp ku fa ñëw diis ko ajoom rek suñ borom daal di ko yombalal mu fajal ko nam bëggee ah ndax ma ne ma gisee ci moom di yaa muy kontaan nañ ci moom ndax ni ma gisee wax di yàlla ko fa dem ko ne yaa ngi koy sant di ko gërëm waaw nit ñaa koy sant di ko gërëm maa ngi koy seetaan ci internet bi saa su ne waaye jërëjëf ak xéwal yaa nu yàlla tasalewaat si jàmm ak salaam